moom la ñu tudde radd su fekkee ay ñoo moom alal ji wallahu taala alam jazakum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaw suñ moon Mbàkke Touré na ngeen def ñu ngi leen nuyu baax di ziare waaw audio bii de ñu bëri yónnee nañ ma ko ñu bëri yónnee nañ ma di laaj li mu ba léegi eh, Ahmed loolu atte moom li mu jëkk a wax rek ca la waroon a continuer xam nga dafa jëkk a wax ni dafa jëkk a wax ni maanaam fatawa yi muy def miraas bokku ci xam nga wax na leer kuy def fatawa kay loo ci génnee miraas mooy wan na ni moom affaire miraas peegu ko kon dafa waroon a delloo masala mi rek daal ni xamu ko lii tontu nag njuumte la goo xam ni sii dañ ko war a leeral nit bu génne àddina maanaam eh, dafa amul lu ñuy wax furoo ak usul ak xawaasi usul mooy ñi nga xam ne ñoo meññ néew néew bi ba ca maam Adama papaam papay papaam ba ca maam Adama furoo mooy ñi jóge ci néew bi ba kay mujj judd ci àddina bi xawaasi nag. moy ñi bokk ak neew bi ñi al yi moy furuul usul dañuy wax nak ni nit bu ge gé ñom ci seen biir mën nañu donante goor ñaar jigen ben waye abnaul xawaas nak goor rek ci don jigen du don manam ben way bu genn adina comme nim ko waxe bayiwul dom bayiwul dara dara la bayiwul ñim ñim bayi dal moy ay domi rakam wala domi magam la bayi ñoy ñoy doon alal ji waye jigen ñi bu boba jigen ñi duñ ca bok kon say doomi mak wala say doomi rak sa doomu mak wala sa doomu rak yow mi génn adina say rak mën nañ la doon say mak mën nañ la doon waaye seeni doom jigen ñi duñ doon goor ñi rek kay doon waaw loolu mum kon lim ni nag jigéen ñi lay jël seen cër goor ñi jël seen cër ñu bari ñu ma yónnee audio bi ak Jibril yónnee na mako amna keneen ku mako ko mais mun bàkki Touré bu fekkee dafa nek ci ab groupe ngay leen dafa joom manam hawashi abnaul hawashi la yarisu min abnaul hawashi illa dhukur wala bok min awlaadi hawashi illa dhukur nit bu genné adina bayiw lu ay doomi rakkam ak i doomi magam bu fekkente ni ay góor lañ nañ séddoo seen alal bu fekkee ay góor ak jigéen ñi ay jigéen lañ jigéen ñi dañ naa leen toog leen ne bàyyi seen càmmiñ yi doon waaw bu fekkente ni euh, ci am ay ñoo xam ne si nag seen baay baay rek la bokkal néew bi kon ñi bokkal bu ñi seen baay bokk ak néew bi ndey ak ñoom ñooy iir ñooy iir ñi nga xam ne si seen baay euh, baay rek la bokkal la euh, néew bi waaw kooku daal njuum goo xam ne si mënoon naa yem ci lam jëkkoon a wax nag lam ni woon euh, affaire miraas bokkul ci fatawaa yi xam nga kooku njuumte la kuy def ay fatawaa kay amul loo kii loo génne wala boog boo ko xamul nga ne xaw ma ko mais njuumte moom baax na jërëjëf jëf mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat yii nii si commentaire li nak do ci fay dara te dina tax video buñ dugalati ding ci jot jangin ngeen